Thank <laughs> you.

ba pare ñu xëyu suba rek am benn doomu sénégalais bu jóg daal ne man wóolu leen ma ndax man musuma xaj wala sonko programme boobu lañu jaay musu ñoo sàcc léegi nag peuple bi fal ko ne ko jàppal ñu sàcc kat ah loolu mooy programme sonko mooy programme sonko sa jàppal ñu sàcc kat moom laa taxaw ne musuma sàcc waaw après peuple bi ne ko yow la ñuy fal parce que dëkk bi bëri na borom xam-xam bëri na ay liggéeykat mais ku jub la manqué comme yow nee nga yaa jub yokkaay yow yow ñuy fal. ma ne woon Sénégal yi nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir. mais xam réalité bi moo taxoon ma ne Sénégal di ngeen souffrir est-ce que am na Sénégalais bu mun a weddi ni Sénégalais kon ñoo déggandoo jëwriñ Ndiassé ci analise bu am solo bi nga xamante ne def na ko te képp kuy sénégalais war nga yeewu daal di ciy bàyyi xel. sénégalais dañ leen jaay pendant fukki at benn projet lan mooy projet bi mooy projet PASTEF projet PASTEF lan moo ko taxoon jóg pour régler problème sénégalais yi jëmale ko ci dund bu cher bi jëmale ko ci li nga xamante ne mooy chômage yi ndaw yëpp am xëy jëmale ko ci lépp loo xamante ne mooy train de vie bi ñu daal di koy wàññi ba képp koo xamante ne soo nekkee Sénégal soxlatoo di immigré dem France ba États-Unis nga toog ci Sénégal liggéeyal ko sa bopp ñu jaay leen ko pendant fukki at woo leen ci ay combat woo leen ci mortel combat woo leen ci ay manifestation ñii dee ci ñii rey ci ñii gaañu ci ñii laago ci ñii ñàkk ci seen alal ñii tëdd ci pendant des années ba noppi ki jiite woon projet boobu daf leen taxaw ne man dama cling def naa fukki at ak juróom ci benn direction boo à maintenir musuma faa jël dërëm képp koo xamante ni mës na maa ger wala mës na maa def nangam na taxaw sénégalais yëpp gëm ko ci loolu bi sénégalais yi gëmee ci loolu ñu porté ko au pouvoir ak li nga xamante ni coalition bu mu le 24 mars 2024 bu mu egsee lan la njëkk def maanaam traqué ñi nga xamante ne mooy sàcc yi kon jëwriñ jaase neen leen projet bi du dara lu dul man mii duma sàcc musuma sàcc donc yow mi musul sàcc jàppal ji sàcc yi moo tax jamono ji nga dégg ay rapport de kon comptes nag IGE diw sàcc na ku fi gox woon alalu état bi duñ ko goxi kon nañ jàpp ni projet bi du woon pour wàññi dund projet bi du woon pour wutal ndaw yi xëy projet bi du woon pour yombal train de vie bi projet bi du woon Sénégal naat projet bi lenn la woon yow mosoo sàcc kaay jàppal ñu sàcc bi kon fal nañu koo xamante ni dañ leen jàppal sàcc kon nañu xaar mu jàpp sàcc yi incha allah donc Sénégal nañu xaar loolu du samay kàddu nag kàddu kii nga xamante ni mooy jëwrin Diasse la noonu la gisee te muy analyse bu am solo ndaxte besoin de premier ministre yi c' était pas pour jàpp sàcc ndaxte police mi ngi fi justice mi ngi fi cour des comptes mi ngi fi AFNAC mi ngi fi IGE mi ngi fi ñoom état bi dañ leen sant ñu xool naka la ñuy def pour alléger li nga xamante ni mooy dundu askan bi mais pas topp ci ay rapport u OFNAC pas nekk di diap ay nit di leen yóbbu ci donc di def sas aux sorcières donc du loolu lañ doon xaar donc je crois que su dee loolu moo projet bi yow musoo sàcc musoo tilim musoo def dara donc kay jàppal ñu sàcc bi sénégalais ñi ngi xaar nga jàpp sàcc yi nga présenté ñan ñooy sàcc yi ñu delloo si waat Sénégal. <laughs>